paa pii poo pë pë paa pë poo pë paa pii Seck. léegi bi bi nee rek maa ngi sant yàlla baax. alhamdulilah maa ngi jàmm maa yàlla bu baax. ngi gërëm bu fa. naka yaram bi alhamdulilah. jox la ndox nga naan ndox naan bu doy na ana buur buur dafa génn ci suba dafa génn waaw solo na lu baax waaw ok sa jëkkër suy pare génn la koy defar génne ba mu baax bu mu fekk mu tilim moom gomme paase fu mu génne kii ñu xam ki askan boo bokk askan la jëlee ñun sañse rek waaw toppatoo sa jëkkër nag ci lépp nag njaboot yu barke rek lay am xaw ma nag boo ko toppatoo maa ndékki na lu mu ndékkee lu mu ndékkee alhamdulilah. ana Modou Mbaye. Modou Mbaye di nelaw. nelaw moo tax nelaw. waaw ah, Modou Mbaye looy nelaw ba waxtu bi ah nga Yacine may si biir nekk ci répétition yi rek amu ma am fan yi man maa ngi répété bay dugg ay studio di préparer benn single boo xam ni maam dama koo bugg a génne rek tout Sénégal single billaahi wallaahi maam single sa morom yëpp di def ah, ah? waaye nag maam affaire yi bëggoon naa ñëw sa kër sax pour ñu waxtaan si ndax dëggër na trop problème studio bi fi mu toll nii nii nii dama a desal weccet quoi madame naa leen xaalis. Modou Mbaye xam nga ne single. Hmm. soo ko génnee wala nga génne kaset ki hmm. Sénégal jaay bii. Hmm. da nga koy wut koo ko ndayale ak koo ko bàyyile. Eh. ma ne la mu financé la lu loolu loolu. wuy ma. Eh. ba pare nag. Eh. nga woy ko ci toog dëkk bi. mooy man moom li ma la waxoon rek. ñiy tabax ma jaaxal. mais toj moom naa ko def. bàyyi ko sama loxo. <laughs> teg ko sa loxo. alors.

single bi bàyyi yëpp loxo. maa lay wut ko ko bàyyi ak kooku ndey la. jëm dégg na sa xol sedd. bàyyi ko sama loxo. Hmm. ay waay tuuti ba sa yaasin saagoo sama xale bu baax bi ci man yow mi tegoo ma fi benn côté rek wacc ma fa dem oh. jàmm nga wàcc nga oh. aywa yàlla na yàlla defal jàmm sama directrice bi ah. yaa baax yaa gore jërëjëf doom yàlla na la yàlla defal jàmm xam nga lu ma nekk xel ma toog mooy ci jàppale jëkkëram kii nga xam ne lu jëkkër def benn ci kër gi xale bi daf ko duubal toogul ci naaj bi ba ker bi fekk ko fi wala mu toog ci ker bi ba naaj bi fekk ko fi déedéet mu ngi daw ci kër gi rek toggul taxaw yàlla ko yàlla defal jàmm wante nag ku jóg nag ne faax ñu fàgg damay foog na yaay waage toog ci kër gi rek di xool benn miir eh. xool ko rek waaye yow na nga def yow yaa nii oh li nga nekk rafet nga yal na yàlla defal jàmm man dama sonn ci yëkka yëkka yi daal bëggatuma sax su doon sama sax bu ma yëkkal ci dara parce que doom xamatuma lu mu def ak ma lay wax yaa ngi ci pon mi yaa ngi ci waaye yow xale bi xanaa doo sonn ah waay sonnal waay ah waay ah, xam nga lu ma neex ci yow mm-hmm. askan bi ko bokk dugg ci biir askan bi ñu bokk max yow loolu amul lu ma nee xale bi yal na la fi yàlla may njaboot yu barke ñu fekkee te tal ko yàlla fale kat jërëjëf doom yal na la yàlla jàppal li ngay def yëpp xam naa ko yal na la yàlla suturaal nit dugub ak soow yaa baax ku baax bi wax ko jërëjëf ah déedéet. non jël ko rek moo. déedéet mu ko jéem dama sonn ci jël bi. <laughs> lii dafa bari. su fekkoon ne saa yoo ma ko joxe sama loxo këtt. walaay soo ma koy jox du ma taalal sama loxo. yal na yàlla defal jàmm. may la njaboot yu barke jërëjëf jërëjëf dama tàyyi ki nga xam ne lii lekk ak mbuba rek dama tàyyi ci mbuba yi lekk man lii laa gëm lii moom sax lii moom a intérêt moom moom laa dugal fii jéeg boo xam ne lekk ak mbuba waaw na Yacine may sa piqué. waaw. mbaa yaa ngi ci jàmm. barkala barkala. tranquille. waaw waaw bien. je suis content. <laughs> eh bien je suis content. dinaa la xamal benn affaire. Hmm. askan wi yépp sama yaay ci daq doo leer. et may sa yaay. di daw si ñu la foor. waaw. askan bi di bokk a foor dafa neex. très bien. fa nga def rek. Eh? nam naa la trop ah. voilà. maa ngi ci jàmm yaay. maa ngi bég boo ma gisee xam ni je tout content. waaw damaa damaa kontaan. ah. yaay wax dafay dëngoom seede. yaa ngi mënoon ngaa fàtte ni je suis un intellectuel parmi les griots. wala nga fàtte. sama gëdd ci seen biir ñoom géwal yi topp sa xolu yaay yi dugal ma ci li la neex amoon nga sañ-sañ ki te bu boobaa yaay duma bañ mais danga xool fa nga war a xool tànn la nga war a tànn <laughs> et bien yaay mu jekk lool rafet lool mais yaay lañu naan rëbb fa ñaay wa dee ku fa yendu añ ku fa fanaan reer fii la ñaay wi dee yaay fii la ñaay wi dee maay yaay lu waaye mu lu neexul ba mu des lii et que tu peux pas comprendre que ni jamono yi laa gën a réew tu sais pourquoi waaw maa raw piccu lippaa may woy naan xol seddati na guyoo doom lippaa xol xol seddati na mais yaay je suis très xale bi yërëm na sama poos xam li neex ci sama xol kontaan naa gërëm moom petit ko def oh. et puis elle est balaa nga koo xam ma tëdd mu njëganu sama kaw. doon miniature. <laughs> mbaa gisee nga ak awo pour këram. sànq laa ko gisee xuluma ko sax. Ah. Hmm, sama yoon nekku ci sama cumukaay ki mbaa indi nga ko. ay waay reyati ma waay lii lan la nii. sama yaay ma xanaa xel yi dafay fàtte papa moom ma fàtte kéwéti armoire te yëkkati woon naa ko de ma tegaat ko léegi ñu ngi def xaar ma dem jëli ko. ma wax la. waaw. a gaawee xam nga waaw waxal. je joue plus bien. ah. maarudee bi salaam xaw la bi rabi rabi. oh ma déglu ma wax la. déglu. yaay. ma génnee ci néeg bi. bu ma hmm. duggee rek laay mottali ko. ah waaye bu ma waxti loolu papa bu ma ma mën dimbali sinon maa ngi dem laa bi siin. doo dem laa bi siin ndegam maa ngi dund. bàyyi ma dem jëli ko waaye dama tubaab bi dafa am lu ma war a récupérer ci moom lu am importance waaw faw ma dem fa tey mu bëgg waaw ma mën ko récupérer soo ko dem ay fee damay dëpp carte gi dama koy lambeer ma ne dëppal ba dëppal téléphone bi dëpp kar bi très bien xam ne ma koy joué loolu def baax na looy waaj a def loolu la wuy ma maa ngay dem. wuy ma. yàpp bu bëri ndawal laa def nga xunc ci ba baax sekk. yaay toogal xunc ci ndawal gi. dafa timis de. wala timis bi paase na bàyyi rek ma dem. ndawal lu bëri de laa toggalu tey. ma ne baax na. toogal xunc ci. waay waay xuncanteewu ma waaye dama bàyyi ma rek ma dem. sama yaay mu bëri fitna de. wallaay toogaay dafa yëg. yaa ngi toogal ba timis gi maase. xaaral ma tàggu xaaral ma tàggu moom. yaay kaay mu dem. waaye yow yow kii de waa ji génn singalam bi. lan bi. jigéen kii ma pare na ko mare na ko singalam bi. yaay singalul lan. Modou tëb fii mu jéem. Modou. Modou Mbaye. ah waaye maa ngi ñibbi papa. yaa booy yaay Modou Mbaye dana la ràngati de. ma ràng tox ma moom laa jëkk a gis sama sët bàyyi ma bu ma def nii. baax na. Modou Modou Mbaye. ah maa ngi dem damay tàggu sama fansa bi. fansu lan. mu ngi fansa anti bi. waay. yow daal xamoo lu xew parce que dangay tukki rek ah yëpp sa gannaaw lay am Modou. Hmm? maa maa ngi dem waaw. ana sama fansa bi. waaw fansa bi ma tàggu ko. Eh, Modou Mbaye jarul xiin xiinal. gannaaw da siiw ba yori fans di leen dugal ci néeg génn ko sama yaay dafay ñibbi. waaw waaw tàggatoo ak moom. waaw waaw macha allah. oh yow bàyyi damay bëgg a jóg. ah jóg maa ngi dem. waaw. waaw kay dégg nga. góorgóorlu leen. ba su génnee fii day raxajo pasar <laughs> maa ngi dem buur maa ngi dem papa maa bi ni ko débuté c'est très bien ko jàpp nii dëgër na de war naa ko ci nodd googu ngay dégg nag billaahi Modou Mbaye yaa ñàkk jom waaye Seck mënoon ngaa toog xaar ndawal li ndawal lu bëri la ñu defal